je pense que comme euh, ni ma la ko waxee xam nga am na am na yoo xam ne dañ euh, ko dañ koo dañ ko dañ koo defoon presque ci mois de novembre bi mooy assise donc assise yoo noonu boo gisee point yi nga xam ne moom moom la ñu tënk concernant sécurité euh, ci assise yi ñun étudiants ñoo ko proposé parce que par exemple tey gis nañ euh, activité bi nga xam ne moo xewoon le premier juin donc loolu nekkul loo xam ne ce sont euh, euh, c'est une revendication de l'étudiant mais dafa nekk loo xam ne activité politique la donc mu nekk li nga xam ne comme gis nañ ne moo nekk source bi nga xam ne moo handicapé université bi loolu tamit instant boo koy xeex da war a xeex pour activité politique bi nga xam ne moom moo andi loo noonu ñu jéem ko génne li nga xam ne université léegi aussi Euh, euh, ñun ñoo représenté étudiants yi te on nous a on nous a pas élu on nous a nommé donc ça veut dire que instant bi dans toutes les facultés am na amicale donc amicale yooyu lépp loo xam ne moom lañ tënk loolu mu ne moo nekk li nga xam ne mooy dox ci biir université bi donc ñu ne instant bi comme loolu am na tey li nga xam ne mooy mooy politique bi nañ ko jéem a écarter ci ci ci ci biir université bi euh, wala ñu jéem a ñu jéem ko encadrer léegi aussi am na loo xam ne da doon andi ay violence ci biir université bi mooy les mouvements détenus et autres loolu aussi nañ ko jéem ay épargne ci li nga xam ne mooy université bi donc instant bi loolu nekk la loo xam ne tey am nañ yaakaar ne bu ñu ko defee euh, aussi en collaboration avec l'ensemble des étudiants tey euh, li nga xam ne moo xew université doon xew université parce que loolu moo nekkoon li nga xam ne tey euh, nekkoon na nekk nekk na li nga xam ne tey moo doon moo doon moo doon les sources de violence